qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru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 بغية همتي وقصى مطلب محمد وصيلة بالعربي الحمد لله الذي منا تلت إخلاص سعي ومراءة الأدب ما ينصر القلوب والسرائر دون الذي منا يكون ظاهرا ثم صلاة مع سلام يتبع على الذي فينا غدا يشفع من بفدائل الحدى تحلى وأن رسائل ردى تخلى mbokki M Media Group Nourou Darayni noo ngi leen di nuyu bu di leen siyaare di leen jéggulu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu jàmmi àddina ak alaxira ci barke Seexuna Xaadim kon nu fa sini desuwaat ci sunu jataay bi nga xam ne mooy zaadu nisaa'il muslimaati lin nasihatil mu'minina wal mu'minaat doon jataay boo xam ne jataay laayenti biir la comme ni nga xam ne noonu lañ ko andi woon ci nga xam ne laay bi dafa bokk ci diine lislaam ngir xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne addiinu nasiha lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimati almuslimina ammatan mu mel ni jataay la boo xam ne dañ ci wax suma sunu bokki soxna yi waaye di ci waxak suma sunu bokki jullit waaye di jox ak mbooleem képp koo xam ne suñu boom nam na sag jariñu ci biir jotaay bi ñu tudde ko yóbbalu jigéen ñi yóbbalu jigéen ñi nag keneen mën na ci yóbbalu góor mën na ci yóbbalu jigéen mën na ci yóbbalu waaye jotaay bi daal tur win ko tudde mooy yóbbalu jigéen ñi kon njëlbeen gi mooy sax waxtaan ak sunu bokki soxna yi mooy njëlbeen gi ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon bi paase wax li nga xam ne ci la jotaay bi lalu mooy jéema laayante biir ngir lenn ci li nga xam ne suñu boom na ñu xam ko te mën koo laaye biir ak soxna yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne aji nëbbu ci xam-xam mbooleem la suñu boom sàkk da koy rëbb ba ci jën yi ci biir géej gi ak janaaw yi naaw ci kaw jaww ji Sëriñ Tuubaa wax ne wax itam fa kullu man bi ilmihi xad baxila fa innahu xablal mamaati yubtala képp koo xam ne si borom tabaaraka taala daf la may lenn ci xam-xam loo xam ne man nga ci laay biir sa bokk jullit yi waaye nga lànk bañ leen koo laay biir ngeen nay ca xam-xam na balaa ngay faatu des na la nattu loolu moo tax li xam-xam kas néew ñu di ci laayante biir bokk ci laayante biir nag jataay bii nga xam ne mi nga amee fii ci M Media Group nooru daari ci njiital Serigne Ngom ñu ngi ak bokk yi mu ko àndal ñu taxawal ci jataay bi mu mel ni jataay bi passé kon noo ngi woon ci leeral ji ma leeral loolu waaye jataay tey bii bokk na ci li nga xam ne moom lañ indi ci wàllu sunu bokki soxna yi ni benn woykatu arab waxe ci xasidaam gu tudd al ilm wal axlaaq والمال إن لم تدخروا محسنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم يك إن لم تكتن به شمائل تعليه كان مطية إخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوجه ربه بالخلاق من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت أعددت شعبا طيب الأخلاق noonu la ko toppee ba xasida ga jeex nga xam ne biñ ci itteewu rek mooy al ummu madrasatun isa ahdataha ahdata shu'ban tayyibal axraq wax ne yaay mooy école bi jëkk nga xam ne say boo ko waajalee rek waajal nga ak giir wala nga ne waajal nga puubal boo xam ne bu teey aw askan lay doon nga xam ne jigéen moom dafa am solo am solo goo xamante ñàkk a xam solo si nga xam ne moom la jigéen amoon solo ci jamono yi nga xam ne bu jëkk lislaam la moo taxa ñu daan teg jigéen yenn coono yi jàppiwu na ko lenn sax loo xam ne lu am solo la li alquran di wax wa isa bushira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswadan wa huwa kazim loolu ñàkk xam ñàkk xam dayub jigéen moo ko waral li alquran di wax itam wa isal mawudati su'ilat bi ay zanbin xutilat loolu moo ko lool nga gis ne jaahil yi ñoom danoo ñàkkoon a xam teraangay jigéen wala ñàkk a xam teraanga ji li nga xam ne moom la suñ boom subhanahu wa taala defal leen ci jigéen ba nga xam ne lu nekk daan nañ ko teg wala daan wala sax jàpp ko loo xam ne daa nekk nit la nit la koo xam ne nit la comme ñoom moo tax ñu wax ne inna al arabiya fi l jahiliyati euh, tunkahu l maratu min azwaji siwain muxtalifa jamono yi nga xam ne lislam diggul ci jamono yi ci jamono jëkk arab yi daanan jël jigéen di ko di ko takk façon takk bu ci nekk ngir doy di jigéen ngir ñàkk koo xam bokk na ca nikaaxul eh, istibda bokk na ca nikaaxul rati bokk na ca nikaaxul biqaaya bokk na ca nikaaxul badal ñeenti façon takk yëpp bu ci nekk rek daanan ko takk jigéen ñoom arab yooyu dañuy tuddee nikaaxul istibda daanan ko takk jigéen ngir ñàkk xam ab dayoom li ñuy tuddee nikaaxu raxti nikaaxu raxti daanan ko takk jigéen ngir ñàkk xam ab dayoom li ñuy tuddee nikaaxul baxaaya daanan ko takk jigéen ngir ñàkk xam ab wàccuwaay moom jigéen li ñuy tuddee nikaaxul bodal daanan ko takk jigéen ngir ñàkk xam ab wàccuwaayam boo déggee nikaaxul istibdo mooy góor gi yore soxnaam ba yàgg am keneen ku ko soxla soxla soxna si jaar ci ku góor gi mu yëkkati alal jox ko mu yebal soxna si sa góor googu mu dem nekk nekk moom ba waxtu wum ko soobee loolu mooy nikaaxul boo déggee li ñuy tuddee nikaaxu raati mooy ci jamono yu jëkk ya benn jigéen lu mat fukki góor wala lu ko yées wala lu ko ëpp siq gën jigéen mooy daanam bokk jën jigéen ne mooy suma soxna lu mat fukki góor daan bokk jënd jigéen mu nekk seen soxna saay bu ñu demee nga xam ne jigéen ci toll na ab diggante ñoom ñëpp genn ku ci nekk won ko ginnaaw jigéen ji mooy xool ka ko soob ci moom mu dem ne kii mooy sama baay bu doom loolu lañ tuddee nikaahu raxti loole daana am ci jamono yi eh, jaahiliya eh, njëkk lislaam di ñëw li ñuy tuddee nikaa nikaahul baqaaya boo déggee li ñuy tuddee nikaahul eh, mooy ay jigéen ay ay góor ñu bari ay seet daanaka solo solo teg bee ñu tuddee nikaaxul istibdaa nga xam ne góor ñu bari bari ñoom ñooy dikk daje ci genn jigéen ñu xool ka ca ka ca ka ci gën a ka ci gën a ëpp daraja ca góor ñu ñu féetale ko ñu féetale ko jigéen ña su boobaa nag dañuy foofu jigéen ñi ba jigéen jigéen may ko góor yu bëri waaye kenn ku ci ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom am ci nag ku góor ko mooy xool ka ko mu bàyyi ñëpp dem ca kooka loolu lañ tuddee nika nika nika ul joxaaya am na itam lu ñu daa tuddee nika nikaaxul badal nikaaxul badal mooy masalan nga am sa doom keneen am doom nga ne ko kaay ñu weccoo nga jox ma sa doom ma jox la sama doom ak can dox ci diggante lenn du ci dox ci diggante wala nga am sa soxna kee am soxnaam nga ne ko kaay ñu weccoo nga jox ko sa soxna mu jox la soxna lenn du am ci diggante bi wala kee am rakkam ju jigéen wala magam ju jigéen kee am rakkam ju jigéen wala magam ju jigéen nga ne ko kaañ weccoo maanaa daal mooy sëy weccoo weccoonte ay doom wala weccoonte ay soxna wala weccoonte ay rakk wala yu mag loolu lañ daan tuddee nikaaxul badal loolu lépp daana am ci jamono yi nga xam ne eh, lu jëkk lislaam du ñëw nga gis ne kon eh, li ñuy tuddee nikaaxul istibda nikaaxul rati nikaaxul daxaaya nikaaxul badal lenn lenn daaw ko indi ci arab yi ci jamono yi lislaam jëkk lislaam dikk loolu di ñàkk xam digg digg dayub jigéen ñàkk xam digg digg wàccuwaayu jigéen wala jariñal jigéen loolu rek moo waral lool ci jamono yi jaahil yi nga xam ne boobu lislaam ñëwul ndax xam naa kon dañuy taxawlu foofu tey insha allah taala ba beneen jataay ñu dikk ci bi lislaam dikkee fekk arab yi ci seenu ñàkk xam Euh, seenu réer suufeel gën daan suufeel jigéen ngir ñàkk xam wàccuwaayu jigéen waaye ngir ñàkk xam digg digg dayu jigéen ak lenn ci secret yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ko ci saa allah taala bii di ñëw dinañ dikk ci bi lislaam dikkee fan la teg jigéen ak ban wàccuwaay la ko jox insha allah taala kon dañuy taxawlu rek ñaan suñu borom defal ak digg ak toog asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa بقتل مسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قرار